salaamaaleykum gars yi na ngeen def ma leen nuyu di leen leen wax ni yéen a ngi seen canal Galsen Tube ak seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube nangeen ngeen def bay gagner xaalis ci YouTube. waaw bi mu nag mooy deuxième vidéo ci paramétrage par mobile ginnaaw ba ñu vidéo bu njëkk bi nga xam ne ouverture compte Gmail la woon ak euh, création canal YouTube ci mobile nga xam ni vidéo bi mën ngeen ko am ci lien bi feeñ nii juste bu ngeen ko bëggee seetaan bu ngeen pare ngeen ñëwaat vidéo tey nag jëmoon ci paramétrage ci YouTube Studio. parce que YouTube Studio dafa nekk beneen application boo xam ne soo bëggee di def paramétrage ci YouTube application YouTube bi pour seetaan ay vidéo la bi nga xam ne bu yéen ñëpp seen téléphone moo si nekk pour seetaan mais fekkee danga nga bëgg na def euh, paramétrage sa compte YouTube ci sa téléphone il faut nga installer ci Play Store bi wala App Store beneen application bu tudd YouTube Studio YouTube Studio euh, bu ngeen ko xamul logo bi moo feeñ nii juste boo duggee ci sa euh, Play Store soo tàppee YouTube Studio dina ñëw installé ko installé. automatiquement su fekkee ni sa YouTube dafa connecté woon dafa koy synchroniser automatiquement da ngay mën a gis vidéo yi mën a def paramétrage yi mën di yokk ay description ay titre modification yi da koy mën te vidéo tey bi nag ci YouTube studio bi nan ngeen koy installé ak nan ngeen koy paramétrer YouTube studio c'est dañuy def euh, vidéo tey bi boo defee vidéo bee di ñëw nag dinañ leen woon tamit ba léegi sa téléphone nan ngeen ci mën a defee euh, paramétrage ci nga utiliser version ordinateur ci sa ci sa ci sa mobile bu boobaa nag da ngeen dem si vidéo yi njëkkoon def ci ouverture compte ak paramétrage ci ordinateur même vidéo yi ngeen di seetaan appliqué ko ci seen téléphone parce que téléphone bi day dana la jox option wu nga ubbi sa canal YouTube gis ko version boo xam dafay mel ni ordinateur nga koy gis ba fay li nga bëgg a def day yomb mais nag bii moom ci application yi la jëm comme mobile yi application la ñu àndal vidéo tay bi ci application YouTube studio nan ngeen koy installé ak nan ngeen koy defee paramétrage vidéo yi ak description yi ak euh, tag yi muy mot clé yeeg yooyu loolu la ñëwoon pour def leen kon ñu bañ guddal dem juste ci euh, ci kii bi ci téléphone bi directement pour wan leen ngeen di installé YouTube studio ak nan ngeen koy paramétrer. asalaamaaleykum gars yi comme ni ngeen ko xamee rek ñëw ci seen euh, vidéo paramétrage ci seen ci mobile ak application YouTube studio. nga xam ne muy application boo xam ne bu fekkee da nga nekk youtubeur wala ngay ubbi youtube def ay te nga ëpp loo yor sa téléphone il faut nga télécharger ko sa téléphone parce que daf lay dimbali si paramétrage yi nga koy mën a def ci sa téléphone mën nga changer sa titre yi mën nga changer description mën nga changer tag wala mën nga télécharger après boo amee temps nga connecté sa sa portable pour yëpp nga def ko option la boo xam ne amul ci YouTube standard bi nekk ci mobile muy euh, lu YouTube bi nga xam ne mooy ànd ak téléphone yi am ni pour seetaan la ak pour euh, uploader pour téléverser vidéo kese la mais munoo changer description yeeg def ay paramétrage ak xool ay résultat vidéo yi ci visionnage yi fan lañ ko defee yan raison lañ la ëppee luñ la suivre ñan ñoo lay suivre données données statistiques yi yi nga xamante ne moom la la YouTube di jox ci vidéo yi yooyu doo ko am ci YouTube standard bi léegi nag YouTube Studio bi c'est très simple boo ko bëggee am il faut da ngay dem euh, Play Store waaw Play boo ñëwee play store e nga tàppe play store nga cliquer bokk play store mu indil la fii xam nga dama ko télécharge kii woon recherche mi ngi ni baar bi ci kaw bu ngeen xoolee yi nga ci kaw ma tàppe YouTube studio boo ko tàppee nga def xaaral ma arrière sax mu gën a kii voilà ñëw ci version kii bi base accueil bi léegi fii ngay ñëw barre de recherche bi nga tàppe fi YouTube studio nga def recherche gis nga automatiquement indil na la ko YouTube studio moo ngi nii wala bu fekkee indi ko indi def ko liste tamit nga cliquer nga xool l'essentiel boo xoolee di nga gis seen bi nga xàmmee ko nii mu mel ni logo paramétrage nga ñu bind YouTube studio Google ñoom ñoo ko defar nga xam eh, bi mooy version originale bi après nga cliquer ci installer léegi nga xaar euh, installation bi mu mat voilà cent pour cent léegi installation baa ngi daw voilà installation bi pare na léegi ñu cliquer ci ouvrir léegi boo cliquer ouvrir gis nga dalay indi yi nga ci page accueil yu YouTube Studio léegi automatiquement yaa ngi gis ñoo ngi connecté wu ci compte seen Tube lu tax parce que si téléphone bi canal YouTube bu seen Tube moom lañ ci connecté woon ci YouTube version standard bi te YouTube Studio boo ko téléchargé automatiquement bu installé ci téléphone bi su ubbee ko automatiquement sa compte YouTube bi nga xam ne moom nga moom nga euh, nu mu tëti moom nga connecté ci YouTube standard bi moom mooy connecté ci YouTube Studio bi parce que benn lay nekk toujours compte bu connecté faire YouTube Studio moo ci moo ci connecté wu loolu Google da ko def mu si da ko synchroniser automatique léegi YouTube Studio bi boo ci nekkee moo nekk nii parce que ndax ñu ñu leen di won ci bi bàyyi beneen compte bi ñu ubbi woon amul parce que compte boo xam ne statistiques yi ñu leen bëgg wan ak euh, vidéo yi si nekk nan ngay def changer description yooyu doo ko mën am fii amul vidéo loolu du mën ñëw moo tax te compte boobu téléchargé guñ ci vidéo moo tax ñu ñëw ci compte boo xam ne am na ay vidéo mooy compte formation bi vidéo yu bees ci nekkagum léegi ñu mën leen ko mën a comprendre nan lañ koy manipuler boo xasee am say vidéo dugg sa compte nan ngay def léegi fii gis nga élémentaire statistique la bindal ci kaw ci weer bi ci vingt-huit euh, derniers jours yi di nga mu bindal la durée de visionnage en minute ci vidéo yi fi nekkagum mu bindal la nombre de vues yi nga amagum évolution di nombre d'abonnés maanaam ñaata personne ñoo abonné <clears throat> revenu yi nga amagum compte bi xam nga monétisation bi activé gul parce que amagul 1000 abonnés ak 4000 euh, heures de visionnage moo tax di nga mu def 0 dollar di nga ba wàccee suuf mu defal la vidéo trois dernières vidéos yi nga xamante ne moom lañ mujjee def ñoom ñoo rangaloo fii di nga mu defal la ci suuf commentaire Euh, di nga mu defal la commentaire yu mujj yi ci ci vidéo yi gis nga ak autre nga boo ñëwee fii ci kaw fi mu def analytics su fekkee da nga bëgg mu gën a lu gën bëri nga cliqué ci affiché plus nga boo cliqué fii yaa am gën a li nga comprendre boo ci duggee fekk yaa ngi utiliser téléphone ak ay application automatiquement gis nga da lay indil la vie en temps réel 48 heures nombre de vues estimé di nga 24 ñaari fan yi mujj 24 vie la laa ci am. vu en temps réel dernière vidéo publiée gis nga mu indi la vidéo yi nga mujj dugal benn bu si nekk yu mu am ci ay vues ci ci ci ci vingt quatre heures yi quarante huit yi mu defal la durée visionnage yi gis nga un minute deux mille cent trente quatre minute vues quatre cent quatre vues mu indi la durée de vue moyenne moyenne bi cinq euh, minutes seize bi trois minutes quarante trois noonu la koy toppee gis nga abonné yi durée visionnage. statistiques yi dinañ am vidéo yoo xam dañ koy def comme tey dañ leen wan rek paramétrage du muy demee mais yi dinañ leen wan njëriñ bi mu am après ci vidéo yi ba nan ngay xamee vidéo après liggéey nan ngay xamee yenn yeneen vidéo yi nga dugalagul nan nga si liggéey pour améliorer résultat yi gis nga léegi ñu arriéraat soo ñëwaat fii yaa ngi vidéo ji nga boo defee autre contenu mu indil la di yeneen vidéo yi ci des parce nga kanaal bi vidéo yi moo fi nekkagum mi nga amagum euh, six vidéo moo fi nekkagum voilà bi ñu commencé ba léegi parce que dañ ko defoon canal spécial pour formation bi kese kese vidéo yi ñuy def ci euh, comment gagner de l'argent sur YouTube bi si Galsen Tube kese kese lañ fi dugal waaw yeneen canal yi bokkul ak yi moo tax nga arrière nga mu ñëwal ci commentaire yi noonu moo cliquer commentaire yi ubbeeku moom autre contenu toujours dañu lay wan rek toujours benn euh, <clears throat> aperçu soo bëggee lu gën a bëri nag yaay cliquer pour mën a mën a xam voilà n'est-ce léegi génn Google Play laa ko jaaroon moo tax waaw comme mi ngi nii YouTube studio baa ngi waat ko la mi ngi nii léegi gis nga boo ñëwee fii ci euh, ci kaw à ci kaw fii da am trois traits muy paramètre boo ko cliqué gis nga daf lay indil tableau de bord parce que fii ñu nekk nii fii nii mooy tableau de bord bi voilà boo cliqué waat paramètre nga am possibilité ñëw ci vidéo gis nga comme sànq fële moom la vidéo yi nga ñëwaat paramètre def playlist is nga mu indil la ñaari playlist moom nga ñëwaat ci bu trois traits ba léegi ci kaw paramètre mu indil la ji nga commentaire analytics gis nga nga ñëwaat ba léegi si commentaire analytics gis nga fii ñu ñëwoon nañ fi vue ensemble bi soo ñëwee à à droite vue d'ensemble bi ci mi ngi dend ak fi ñu bind revenu revenu mooy ñaata nga gagné vue d'ensemble mooy de manière générale affaire bi canal bi ci nekk euh, revenu nga cliqué ko mooy ñaata nga gagné gum ci xaalis gis nga mu defal ñu gis nga zéro dollar lañ gagné parce que activé guñ monétisation fekkoon nag dañoo activé monétisation dinañu defal li ñu amagum dollar ci vingt huit euh, jours yi wax ñu jënga lecteur monétisation estimé transaction yi type d' annonce ñaata yan annonce ñoo gën a la suñ si lañ gën a kañ a xaalis nga xam ni ko defee mën nañuy yaa xam bu la neexee mën ngay activer façon annonce yooyu ci say yooyu kase ba boo gisee ni ci ngay gën a gañe waaw ah, lay dimbal daal pour nga xool say vidéo nan nga koy optimiser pour mën a gën a gañe xaalis ci internet bi yi nga clic yi nga am wala visionnage yi nga am boo jëlee euh, boo ko diviser par nombre de vues yi mu wax la benn euh, vidéo bu ñu xool bu nekk ñaata nga ci gañe mu defal la CPM bi coût par mille la bu doon CPC mooy coût par clic léegi ñu ñëw ci découverte nga cliquer yi nga mu indi la type de source de trafic maanaam 28 derniers jours yi 19 euh, pour cent yi ngay gis 19 virgule 9 pour cent yi mi ngi jógee ci ñi nga xam ne cliquer nañ ci canal bi ñu ngi jógee ci source externe maanaam soit ci YouTube ci astafurla ci Facebook wala Twitter wala Instagram wala beneen daal wala ci internet bi faneen mais nekkul ku doon surfer ci biir YouTube la YouTube wan ko ko moom moo nekk nii page de chaîne ñi nga xam dañoo dugg ci biir chaîne bi soo ko gis vidéo yi cliqué 17 virgule pour cent lañ ñi nga xamante ni dañoo abonné ci canal bi ma dugal vidéo ñu envoyé leen notification ne leen vidéo euh, bees dugg nañ ñëw xool ko 17 pour cent lañ recherche YouTube ñi nga xam dañoo nekkoon ci YouTube def ay recherche gis di seetaan benn vidéo YouTube indi leen vidéo Galsen Tube à côté après ñu pare ci boobu cliqué ko 15 pour cent lañ. ñu nga xam nag ci yeneen source yoo xam ne Google déterminé wu ko vingt neuf pour cent lañ ñi nga top de sources externes ci nga ñu ëpp ñu ñëw soixante six pour cent yi Facebook lañ jóge voilà sept pour cent yi ñu ngi jóge egregtdbf euh, point com benn site la boo xamante ni su fekkee danga nga publier sa lien YouTube directement ci Facebook du la indil photo bu mag bi nga bëgg soo ko dugalee ci site bi après da lay générer beneen lien lien boobu mu lay générer soo ko publier ci Facebook daf lay indil Facebook. léegi boo publier vidéo YouTube ci Facebook léegi miniature bu ndaw la lay indil léegi pour nga contourner loolu nag site bi soo fa dugalee sa lien da lay convertir jox la beneen lien lien boobu mu lay jox soo ko fa dugalee nag da lay indil miniature bu mag. vidéo yi nga xam def naa ko site boobu soo ko publier ci Facebook bi di nga 7 virgule 8 pour cent lay indi yi nga xamante ne directement ci YouTube la ko nit ñi xoolee 8 pour cent yi ko 4 pour cent. yi nga xam ne ci moto de recherche Android browse muy moto de recherche bu bu bu téléphone yi 1 pour cent nga top de terme de recherche gis nga terme bi gars yi gën a recherche tomb ci sama vidéo mooy comment gagner de l'argent point final. ji nga deuxième bi moom bomb na 2,6 pour cent ji nga comment gagner de l'argent sur YouTube 0,5 pour cent gagner de l'argent sur internet 0,3 pour cent gis nga kon comment gagner de l'argent kase kase. mu ëpp lu mu indi ay nit ci kii bi nga vidéo yi ëpp top des vidéos suggérant vos <laughs> contenus vidéo yi nga xamante ni bu ñuy jeex toujours dañuy suggérer ñu seetaan sama yeneen vidéo ouvrir compte Gmail bi la moo ci moo moo ci dominé muy 59 pour cent muy lien yi ma ci defoon yooyu après naa leen woon lañ koy defee ci vidéo yi muy lien yi ngay def ci vidéo yi pour après gars yi bu ñu paree mën a cliquer si yooyu bañ a génn ci chaîne bi gis nga top des playlists qui contiennent vos continue ci nga gagner de l'argent sur YouTube même kii playlist bi la 83 pour cent parce que boo boo boo boo boo defee noonu day tax sa chaîne gars yi di jigéen a yàgg pour di mën a xool audience gis nga si kaw nii boo xoolee audience ñu cliquer ko xool gis nga <clears throat> données démographiques insuffisantes pour afficher sa rapport bi gis nga amoo Google amoo YouTube amagul données yu doy pour mën afficher euh, góor yi wala jigéen ñen ñoo ëpp ci ñu xool affaire bi mais ci suuf âge bi tamit nee na amagul données yu doy pour mën ma indil ban âge entre euh, tranche d'âge ban ñoo ëpp ci ñu dugg ci xool vidéo yi pour booy defar vidéo yi tam nga koy sóoral da lay dimbali top des pays gis nga ñu ëpp ñu dugg ci vidéo yi seetaan ko Sénégal 53 virgule cinq pour cent ci ñu seetaan sama vidéo ñoo ngi nekk ci Sénégal lañ connecté woo euh, deux virgule 4 pour cent yi Espagne lañ connecté woo euh, <clears throat> top des langues de source de sous-titres 28 derniers jours yi durée de visionnage en minutes qu'un euh, sous-titre 94 pour cent sa vidéo yi dafa ma si ay sous-titres quoi sous mooy soo defee benn vidéo ci français par exemple wala ci olof nga bëgg ko traduire ci français pour ñu koy seetaan mu indi des fois ngeen su ngeen seetaan vidéo mu indee bind di ko traduire bind vidéo yi traduire du ma leen quoi moo tax boo ko traduire woon nag sous-titre parce que mun nga def vidéo ci benn làkk def sous-titre ci beneen làkk comme ça vidéo buy daw ki déggul làkk boobu sous-titre lay mën a utiliser pour mu koy traduire mu mën a xam léegi ñu demaat ci kaw ci contenu interactif gis nga mu indi la clic sur une accroche par accroche de fiche affichée maanaam accroche de fiche yi ay euh, lien yooyu def ci vidéo yi la pour par exemple boo expliquer benn affaire nga expliquer ba yàgg nga tudd loo xam ni dafa am sa beneen vidéo boo xam da nga ko see leeral nga ne ko ci bëgg daal lu gën a leer na dem ci vidéo bi nga xam defoon naa ko bu passé daal di bind ci kaw titre vidéo bi def lien bi lien boobu ngay def loolu mooy accroche de fiche bu ko defee ñi ciy cliquer suñ demee résultat yi moom leen la jox fi voilà comme man si benn vidéo rek laa ko nga moo tax amul résultat yu mu affiché yu mu génnee euh, gis nga bii tam amul résultat kii bi la top des fiches ni nga amul benn résultat parce que benn vidéo dong dong dong su fekkee nag fur et à mesure ngay dem defal ay vidéo vidéo yi gën a bëri sa vidéo yëpp ngay def loo ci expliquer rek su fekkee dafa am loo xam da nga ko leeroon ci beneen vidéo passé rek toujours bu ko fàtte siteel nga ne am na sama vidéo bu ma bu ma ci ginoon jox ay détails vidéo boobu ku ko bëgg a cliquer ku ko bëgg a seetaan na cliquer ci lien bi lien boobu après naa leen wan nan ngeen koy dugale ci seen ay vidéo buñ si buñ si tolloo comme ça ngeen xam ko loolu yooyu soo su bëree say vidéo ñi ciy cliquer pour di seetaan seen résultat yi moom la lay comme ñun benn dong lañ ci def comme 6 vidéos la ñu amagu moo tax ci nga ñu ñëw léegi ci playlist fii ci kaw cliquer gis nga playlist bi résultat yi la lay jox fii nombre de visionnage des playlists ñu am dugg nañ ci play seetaan <coughs> ci 28 derniers jours yi sept personnes dugg nañ ci nombre de visionnage de video dans les playlists ñu nga 10 durée moyenne pour la playlist ji nga mi ngi def une minute 34 top des playlists gagné à sur YouTube moom moo ëpp ci play ci ci playlist bi nga xam ne gars yi dugg nañ ci seetaan quoi voilà léegi ñu ñëwaat euh, ci parametre boo ñëwee léegi ci YouTube boo cliquer daf lay yóbbu ci ci compte gis nga compte YouTube standard bi fa la lay yóbbu voilà gis nga compte YouTube standard bi nga yii sama nekkoon di seetaan ay di seetaan ay ay ay vidéo léegi ñu nga ñu ñëw fii machem gis nga léegi mu defal la Pape Mor Lo gis nga compte bi gis nga moom laa leen wax bi ma ko connecté fii gis nga amul benn benn benn kii benn vidéo mais par contre soo bëggee changer tour bi mën nga ñëw fii ci logo bi nekk à droite def symbole paramètre ngay cliquer nga boo cliquer da lay jox option nga changer tur bi su fekkee da nga bëgg a changer Pape Mor Lo bi par exemple def canal bi tudd par exemple ko wax euh, wala nga euh, def nga def par exemple euh, yaa xam bijouterie nangam exemple Pape Mor bi fi ngay ñëw nga cliquer li mel ni crayon à droite tolloog moom nga cliquer boo cliquer gis nga léegi dangay mën a changer Pape Mor bi gis nga nga def ko léegi. par exemple bu fekkee damay wax fii ci perte de poids parce que exemple dama ko si loolu laa koy jël jël ko léegi perte perte de poids voilà léegi perte de poids voilà noonu nii baax na voilà xaaral ma foofu poids bi voilà gis nga perte de pois léegi enregistrement bu ma la di nga chaîne bi léegi tourne perte de poids bu ko defee exemple yi ñu leen jox ci wàllu régime ak perte de poids lañ koy def ko defee day day yomb pour ngeen comprendre léegi parce que li nga am ci ngay yëngu chaîne bi da ko tur boo xam dafay méngoog li ngay yëngu mais du force nag bu la neex nga bàyyi fi pamurlo parce que ngay def ay vidéo di ay cosmétique di ay euh, euh, salon de couture salon de coiffure ci atelier yi atelier mécanique wala ngay joxe. ci affaire beauté ci affaire bien-être lu la neex rek da nga def sa tur bu la neexee ça dépend ci yow daal bu la neexee tam li ngay def nga tudde affaire bi noonu waaye loolu yaay xool daal yow ban moo la ci gën a neex daal voilà mais dama lay conseil su fekkee ni nekkul yow directement yow yaay comme euh, nga amoon boutique par exemple maa ngi tudd Pablo ma amoon boutique tudde ko Pablo Shop léegi su boobaa mën naa def fii def sama tur def Pablo Shop su fekkee nag par exemple dama am boutique mais maa ngi tudd Pablo mais boutique maa par exemple Euh, ba amoon euh, boutique tuddee ko euh, business trading business trading laa fa war a def bu fekkee boutique bi laa ubbil kii loolu moo gën a logique moo gën a cohérent mais sinon loo fi munti def baax na yow daal yaay xool après dama lay jox daal ay exemple après nga xool nag ni nga ko bëggee selon yow say image nga liggéey affaire bi noonu quoi après nga ci xool fii ajouter une description nga def fii nga changé ko nga def fii description bi lan la nga def régime régime nga def fii ay régime et perte de poids régime et perte de poids site bi loolu la mun nga am nga am nga possibilité def ba ba ba mille lettres daal yaa xam nga vingt cinq rek laa dugal mais régime perte de poids léegi mun nga si comme ni ma la nga defa ci vidéo boobu passé yaay xool na description mu ngi expliqué Mm, waaw man diw laa tudd su la neex nga def ko su la nga bañ ko def tamit nga def damay joxe ay conseils ci wàllum perte de poids nan ngeen def ba perte de poids ba te du ngeen euh, jël ay comprimés du ngeen jël ay produits chimiques ay produits naturels rek laa leen ngeen di utiliser nan ngeen dafay di perte poids di utiliser sport di li ngeen doon lekk du ngeen ko changer di lekk normal li ngeen doon lekk du ngeen ci changer dara mais ngeen yokk ci seen mode de vie di def sport. Eh, sport boobu nan ngeen koy defee fan ngeen koy defee yan heure ngeen koy def yooyu bu fekkee da nga ci am xam-xam nga ci jox ay exemple mais nga bind détail fii daal yow perte de pois bi eh, ci ban domaine nga nga nga koy expliquer ak eh, nit ñi nan lañ ko war a defee ak yeen nga koy ba ku dugg ci description bi su liiree automatiquement dina xam canal bi pour perte de pois la mais day xam exactement kii yan façon conseil lay joxe pour perte du poids voilà comme noonu la yow yaa xam nag ni nga koy détaillé li nga li nga am mébatu def ci canal yëpp daal nga résumé ko bind ko fii daal ba bu passé mille moom moom du dem mille lettres du dem yaay xool daal nga dem ko résumé tënk ko ba ku lire comprendre te du gudd bu mu ëpp voilà après nga def ok <clears throat> doo defee ok mu enregistré wu gis nga ñu nga léegi non canal changé nañ ko muy perte de poids nga ñëw suuf description bi nga régime et perte de poids léegi nag après yaay expliqué loolu nu léegi nga ñëw fii ci suuf nga def garder privé mes vidéos <coughs> que j'aime nga man noonu laay parce que vidéo yi xam dañ dañ ma neex ci YouTube bi ma defee dama ko aimé pour mën ko ab su ma heure ma ko soxlaa ko suivre vidéo yooyu du ma du ma du ma bàyyi ñëpp gis ko may bàyyi mu nekk privé nga nga def ko mu bula nii nga bàyyi ko ni mu nekk privé garder privé mes abonnements su fekkee nag da nga dugg fekk mu giri nii xaa ma cliquer ko gis nga bi ci kaw garder privé mais vidéos que j'aime maanaam vidéo yi nga xam ne dañ maa neex ci YouTube ba may wane ni neex nañ ma dama ko bëgg na bool dama koo bëgg feeñal soo xoolee ko mi ngi giri nii su nekkee giri yi mooy public la su fekkee ne da nga bëgg kenn du ko xam ji nga ko cliquer gis nga mubb la nga bàyyi noonu nga ñëw bi si deuxième bi garder privé mes abonnements nga def cliquer mubb la nga dem cliquer mubb la mu activé garder privé mais playlists tam nga man ñett yëpp nga ma leen conseil ngeen cliquer ko mubb la nii waaw bu ko defee li ngeen def ci ci ci ci kii bi euh, vidéo ak playlist ak euh, abonement yi ngay def mu nekk la yow seefu bopp voilà parce que concerné wul kenn quoi yow la concerné n'est-ce pas léegi après fii loolu lañ fiy changé après dañuy ñëwaat fële ci YouTube analytics ñu arrière voilà mu indilaat ñu indi euh, mu dégg ma analytics sax mu indi leen si euh, YouTube studio léegi bu nga ñëw fii vidéo voilà ba ñëwee vidéo gis nga léegi gis nga vidéo yi fii lay rangaloo vidéo yi nga dugal fii lay rangaloo léegi nga xool vidéo par exemple vidéo bi njëkk dugal moo nekkoon nii nga xool benn vidéo ci ñoom boo xam ne par exemple titre bi am na loolu la si neexuloon wala yu demee noonu di nga comment gagner de l'argent sur YouTube en wolof vidéo bi en wolof la moo tax yokk ci en wolof analytics gis nga mu def diire de visionnage bi mu defal lii bi defal la daal lay defal commentaire yi suuf afficher plus d'éléments gis nga boo cliquer fii mu indi la di nga comme ni ñu leen explique fee rek information yi mu lay jox di nga boo defee nii mu jox la yeneen information voilà mais comme loolu kii wuñu léegi vidéo bi ci boppam description am euh, gis nga description bi génn gis nga tag yi génnul gis nga kii bi tam euh, nu mu tati option boo ko man a changer amul fii fii ngay ñëw ci kaw boo xoolee li mel ni crayon nii ci te nekk ci kaw vidéo bi te dend ak euh, logo partage bi crayon bu ndaw bi ci ngay cliquer boo ci cliquer gis nga mu ne la option pour nga modifier vidéo bi léegi modification bi gis nga ci kaw ci suuf vidéo mi ngi la bindal télécharger la miniature mooy photo couverture bi ma defar nii def ko ci ci kanam vidéo bi nga xam ne mooy présenté vidéo mooy miniature su ma neexee soo ko soxlawee nga cliquer li mel ne flash bu jëm ci suuf à côté mu télécharger ko ci sa téléphone voilà mais comme man am naa ko ci kii bi soxlawuma ko léegi nga ñëw fii titre comment gagner de l'argent sur YouTube vidéo bi nekk en wolof su fekkoon dama bëgg dindi en wolof comment gagner de l'argent sur YouTube kese laa ci bëgg bind fii laay gis nga ma tàppe gis di nga léegi comment gagner de l'argent sur YouTube kese fi nekk n'est-ce pas léegi ma ñëw ci description bi su doon dama bëgg dind tam en wolof bi tam dama ko bëgg din ci description bi nga li yëpp la su ci bëgg dindi tamit ma ñëw lu ma ci bëgg dindi yaay xool daal loo xam ne nekk mi ngi ci te nekku ci nga dindi ko bu doon nag vidéo bi amul description boo cliqué fi ne yaay nag xool nag vidéo bi ci lan lay traité nga bind description yi nga xool vidéo bi daal ci lan lay traité ak loo bëgg a expliquer nit ñi bind ko wala neex nga boo ne pour vidéo yëpp la nga dugal ko fi ma la waxoon noonu boo fa dugalee loo fa munti dugal pour vidéo yëpp lay apt nga def ko fa yeneen vidéo yi passé expliqué woon naa la ko léegi bu fekkee nag ci benn affaire rek boo bëgg a changer fii la wala loo fi bëgg a yokk par exemple ma bëggoon dindi naa wolof bi ma ñëw fii ñu nga ma effacé ah wolof ñu nga effacé naa ko léegi ma ñëwaat suuf wàcc léegi waaw nga tag yi lépp maa ko fi yokk pour mu gën a ranking bi gën a baax ci vidéo yi voilà léegi ma ñëw gis nga vidéo publique la wala privé bu fekkee privé la woon da nga bëgg ko def public fii ngay ñëw lii nekk flèche nii boo liiree public bi à côté boo demee ci droit am flèche bu juuti bi nga cliquer ko mu ni la ñetti option nga public tout le monde peut chercher la vidéo et la visionner non répertoriée visible par toute personne visible par toute personne ayant le lien voilà maanaam bee ci kaw mooy ñëpp mën nañ koo gis ñëpp bu ñuy wër ci YouTube tam mën nañoo gis sa vidéo mooy bi ci kaw public non répertoriée mooy ñëpp mën nañ koo gis koo xamante ni yaa ko jox lien bi ku amul lien bi moom du ko mën a gis bu bëree ci YouTube tam du ko gis privé mooy yow kese yaa ko mën a gis da nga koo réserver voilà. léegi euh, nga daal def arrière def bokk euh. yi ma modifié daf may daaj ndax dama koy wala damay damay supprimer. léegi damay supprimer modification parce que modification par exemple rek laa jox ma damay cliquer supprimer pour mu bañ a enregistrer si nga vidéo boo vidéo boo mënti am boo ko bëggee modifier noonu ngay def c'est très simple da nga ñëw ci logo bi nekk comme crayon nekk ci kaw vidéo bi boo ko cliquer gis nga di nga mën lu option su ah, kii euh, modification information boo bëgg yi ngi ci def yëpp tag yi eh, seegu ma ci woon yaakaar na parce que maa ngi woon ci confidentiel public wala yooyu. fii playlist boo ko bëggee dugal ci benn playlist xam nga fii nekkul ci playlist da ngay cliquer fii gis nga mi ngi nii ci playlist bii la nekk benn playlist playlist yi nga créé boo ca bëgg a dugal nga dugal ko paramètre optimisation tag yi gis nga mi ngi nii tag yi boo amee tag boo bëgg a muy mot clé yi quoi moom la ñu wax ay tag mot clé boo pour mot clé li muy jëriñ mooy pour bu nit di wër say vidéo pour mu yomb pour mu gis ko mot clé boo ci xam ne da ko bëgg changer nga changer parce que lay jox wax xam am na solo wala amul solo par exemple tey fii ji nga mot clé bi mi ngi dugg par erreur KL la am KL moom du mot clé bu tax ñuy wax mooy koy supprimer voilà voilà léegi kooku dañ na léegi ma pare ma def enregistré dégg nga léegi jeex na léegi ñu ñëw te paramètre trois traits yi nekk ci kaw nga cliqué ñëw fii ci paramètre ci suufu YouTube bi gis nga mu indil la commentaire yi gis nga nga cliqué mu ne la yan façon commentaire mu ngay moom ngay bëgg recevoir mu defal la tout vous recevrez une notification pour chaque commentaire ba mooy benn option bi deuxième option bi importante recevoir des notification pour les commentaires importants boobu mooy deuxième bi troisième bi muy aucune désactiver les notifications pour tous les commentaires man nag personne option bi may choisir mooy bi ci kaw gis nga moo bële nii man boobu laay choisir man damay bëgg samay vidéo képp koo xam ne def nga ci notification am na loo ci def moo xam nga aimé ko moo xam nga commenté moo xam nga am loo si def man mu envoyé ma ko notification yëpp laa bëgg jot pour pour may mën a xam euh, euh, may mën a def euh, analytics samay vidéo bu la neexee tam nga def notification yu am solo rek nga bëgg jot bu ko ci digg bi ngay cliqué muy bii voilà bu fekkee danga nga euh, bëggoo jot benn notification sa vidéo am ku commenté ak lu mu ne bëggoo ko jot da nga bëgg yow heure boo connecté sa YouTube daal xool boo gisee commentaire toon boo gisul bàyyi mais bëggoo kenn envoyé notification naan la am na commentaire ci suuf fii ngay cliqué gis nga mu enregistré ñu nga mu bu ko defee bu enregistré woo nga da ngay gis fii day def day def aucune voilà léegi ñu ñëwaat permettre ba lépp parce que ñoo génn gis nga day def aucune notification commentaire aucune nga cliquaat ca flèche bi gis nga nga def man tout voilà notification yëpp laa bëgg di jot ma def ci kaw nag laa defoon mooy defaat ko parce que dama leen doon wan rek quoi gis nga ji nga notification commentaire tout tout laa bëgg a jot commentaire yëpp ak notification yëpp laa bëgg di jot léegi mu ma m'envoyer des notifications via notification push vous recevrez des alertes si votre téléphone maanaam da nga bëgg ku def benn affaire rek mu lu ko ci sa ci baar logo bi mooy ci kaw fii ngeen di gis euh, euh, kii bi di fi feeñ euh, réseau réseau wifi bi di feeñ foofu la lay indi notification nga xam ne am na ku kii ku ku def benn commentaire wala ak notification bu nekk ah, fii symbole fii ngay cliquer nga dindi naa ko mu gris mooy désactiver naa ko léegi soo ko bëggee activer man damay di leen demande ngeen koy activer parce que moo gën parce que vidéo moom booy defar lu ci nit def rek danañ la ko war a wax pour bu ko defee nga mën a xam noo koy analyser bu dee kuy laaj la bu jëree tontu ko tontu ko bu da ngay soxla jot notification yëpp pour bu ko defee koo xam ne dafa def commentaire dina ah man kat affaire bi neex na ma nangam nangam léegi ndax doo ma mënoon woo wala dafa fekk peut être bëgg na la woo ma gis na sa téléphone ma yorul nga da nga bloqué notification bi loolu doo ko a yëg fii connecté woo ko waaw moo leen di conseillé ngeen ngeen activé ko notification push bi tamit ngeen def ko mu waaw mu ngi nii comme ni ma def nii après muy génn gis nga boo ñëwaatee gis nga jeex na fii changé compte nga ñëw ci ji nga waaw loolu Pape bi ma ma connecté na nekk nii su ma leen expliqué su ma ci duggee da ngeen di gis ni amul benn benn vidéo voilà moo tax dugguma si. loolu daal moo nekkoon vidéo tey bi ci bu ngeen installé YouTube studio ba pare nan ngeen koy euh, paramétrer pour vidéo bu nekk nan ngay mën a defee optimisation bi. mën a changé titre yi mën a changé bu leen fàtte vidéo tam toujours amee xam na loolu sax dinañ ci ñëw insha allah comme am nañ temps affaire tam yàqamtuñ ko nànk-nànk la ñuy def rek moo tax jaru ñuy pour euh, boo defee benn miniature miniature boobu nga si doxul nga def changé def beneen am loo ci yokk am loo wàññi parce que affaire da ngay di defar di di di modeler di modeler ba trouver benn yoon boo xam ne gis nga ni mi ngi dox moom c'est efficace bu ko defee nga kal ko foofu quoi système boobu la quoi parce que nekkul benn affaire mën na dox pour pour ay raisons yu bari bari yu bokkul moo tax toujours da def ay test affaire bu tàyyeel boo ñu nekkee da ngay da ngay sawar bés bu ne da ngay def lu bees boo defee dara ngay si mu teg quelque temps léeg-léeg nga def benn affaire sonn ci ba dee nga defee ni ay affaire bi moom bomb lay nekk nga def ko gis ni intéressé wul kenn mais après nga liggéeyaat ko def ci ay changement gën ko amélioré ba ba ngay gis ni am résultat résultat bu mu am nag li la ko jox nga concentré wu xam ne lii mooy lii lii nit ñi soxla exactement noonu la affaire yi moom doo découragé da ngay ànd ak patience ba pare ànd ak tam motivation voilà loolu quoi léegi nag li leen jégalu ci vidéo bi li mu xaw a yeex tuuti tamit parce que dafa am ci yu ma nekkoon xawoon na jàpp ci presque semaine bi yëpp aw ma temps loolu moo tax ma benn temps pour defoon vidéo bi quoi moo tax mu yeex ma leen see jégalu nag parce que comme dama leen ko promettre woon ne du tard deux jours te romb na deux jours moo tax yéen ñëpp maa ngi leen si baalu quoi loolu la woon pour ay raison personnelle la woon mais pour dama ñàkkoon temps bi woon trop trop trop trop moo mais tout toute façon vidéo bi bi si topp dinañ leen euh, wan léegi paramétrage nan ngeen di utiliser euh, YouTube bi mais version ak seen téléphone ngeen am ci version mobile pour man def seen paramétrage bu boobaa nag paramétrage duñ leen ko wan mais dinañ leen wan exactement nan ngeen si duggee bu ko defee ngeen seetaan paramétrage yi ñu defoon ci ordinateur même paramétrage yi moom ngeen di utiliser te si seen téléphone ngeen ko utiliser. vidéo bi ñëw si si loolu lay lay jubli incha allah kon maa ngi leen di jaajëfal di leen gërëm ci seetaan bi ngeen doon seetaan di leen fàttali nag. Euh, bu leen fàttee abonné ci canal bi parce que abonnement yi dafa am solo mooy tax vidéo yi ñuy dugal bu ko defee yow mun nga sax boo xasee abonné cliquer ci cloche notification bi bu la neexee sax mun nga dem tëdd jaar fu ñu dugalee vidéo automatiquement YouTube dina la ko dina la ko tax toujours ñu leen koy demandé pour ngeen def ko te tam euh, am solo ci affaire yi te vidéo itam bu leen part fàtte tam di ko aimé di ko partage itam ci seen ay Facebook di ko partage seen ay Twitter seen ay Instagram parce que loolu tam mooy tax ñeneen mën si jot xool ni am na solo ñoom di ko partage ko dee information di circuler parce que comme li may wax internet bonne information bi la war a fexe mu dominer ci internet di circuler bu ko defee ñiy négative yi information yoo xam ni ay saaga xastante bu ko defee ñu doole ci internet bu ko defee bu ñu amatul doole ci internet dañu obligé topp mouvance bi voilà moo tax kenn ku nekk loo lépp loo xam ne lu baax la day ko partage ci internet lépp loo xam ne safaan la bu ñu ko partage bi egg si yow bloqué ko ko c'est très bu yàggee internet bi lu baax kese moo si nekk loolu la quoi bonne information bi daal na ñëpp fexee di ko partager parce que je crois loolu moo ëpp njëriñ internet pour loolu la quoi mais du pour dénigrer du pour euh, yu demee noonu quoi ok kon jaajëfatee ba vidéo bi di ñëw incha allah merci beaucoup. ñu ngi leen di ziaraat di leen fàttali ni yéen a ngi woon ci seen euh, formation comment gagner de l'argent sur YouTube nan ngeen def bay gagner xaalis ci YouTube ci seen canal euh, Galsen Tube ku leen ko doon ma leen wax nii ni teg toujours su ñi nga xam ne abonné gu ñu mun nañoo cliquer ci logo G yi feeñ à côté pour mën a abone ñi nga xamante ni tam abonné nañ mun nañoo seet dugg ci playlist bi vidéo yi ñu seetaanul ñu seetaan ko muy ci suuf mooy nekk ci suuf nii boo ci duggee vidéo yi nga jotul seetaan mun nga ko seetaan boo cliquer ci G bi mun nga abonné ci canal bi parce que abonné da ci am solo bu leen fàtte toujours nag di abonné ci canal bi ñi nga xam ne abonné gu ñu ñu abonné tamit ñuy aimé vidéo yi di ko partagé pour ñeneen mën si jot kon euh, ba seen vidéo bi di ñëw nga xam dañ leen di wan paramétrage ci euh, version ordinateur ci mobile ordinateur nga def ko version mobile nan nga ciy defee paramétrage waaw bu boo defee série de paramétrage je crois boo defee dina jeex ñu moo dugg nag ci euh, nan ngeen di filmer ak seen téléphone ay vidéo après logiciel montage yi ngeen war a utiliser pour def montage ak yooyu ko defee ñu ñëw ci ci vidéo waaw ah, di leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube ci seen formation comment gagner de l'argent sur nan ngeen def bay gagner xaalis ci YouTube ak Pape Lo jërëjëf ba suñu vidéo bii di ñëw wasalaam